Pokola mu ngi noonu di waaj a génn waagaan waaye Pokola waaye Pokola ngoogu isaat la jëm moo war a bëreeg Pape rakku Reug Reug Pape rakku Reug Reug fële ca Iba Mar Diop lu muy sànni ay jaxatu Pokola ma ngay sànni ay jaxatu boo yaa ngay woy Pokola Pokola en direct Pikine Pakola jarbaatu Ama Baldé rakku Ama Baldé gis ngeen Jules Baldé gis ngeen Ama ñépp ko waajal Kumba Baldé ngi noonu nee na ma Pakola mooy sama caat waagaan loolu la mu Kumba balde wax ginaar gu weex mbuus mu defi nen cey làmb am na ku mu àndal koo xam ne ab jàllaa bi la sol waaye ma nga kaala woo kaala gu weex ña joxe ginaar ga dañ koy saraxe sarxe nan ginaar gi Pakola sarax na ginaar gi benn meer waaye Pakola waay lii lépp moom lañu àndal dégg nga moto yi convoi baa ngay préparé Pakola convoi hey eh, Pakola li nga génne boo demee Ibamar boo xoolee lii da nga bëre ba naaw ndax lii nekk ci buntu kër gi mbete Ama Baldé muy génn cey pikin ñoo mën a sot cey pikin ñoo solidarité aka ñoo solidaire pikin bu seen mbër di bare kum mën a doon da leen di jaral lu ne ñëppay génn jigéen ñeeg góor ñi Pokola waay jàmbaar la mën naa bëri mën naa xeex waaye Pape Kane lay bëril Pape Kane nag kenn ku nekk xam na ne Pape mu mag moo dëkk caaro yi moom la tudde boppam rakku rëg la déjà foofu rekk làmb la waa non booy yi kay tubaarkaal la dañoo man seen mbër dañoo mën a gunge seen mbër dañoo mën a topp seen mbër dañoo mën a may seen mbër fit cey xale Pikine ñoom kay yow yaay war yow mi ci suuf waaye ñoom ñi ci kaw dañuy yëngal xale yi danaan la yëngalal ci suuf rek ñun bàyyi ñoo kaw gi dinañ ko gérer dañuy yëngal ci kaw ba naaw non làmb ji nag tey du yomb ndax man gis naa gis naa mafia ama bi ñëpp a génn dañuy gunge booy bi. woy woowu moo xew léegi mbojo mbojo yi moom la ñuy woy cey mbojo mbojo yi Pape Thiam nag du mbojo mbajo ndaanaan la de Pape Kane yee mbër la Pakola am nga mbër waaw waaw champion nga ndaanaan nga waaye am nga mbër ndeysaan Kumba Balde waay magu Ama la waaye nee na Pokola mooy am caatam oh waaye convoi bi waay mbete Ama Balde muy dem làmb xoolal ma cey Pakala moom de lim sotti koo fii rek daanaka cey làmb làmb daal kenn xamut lumu toj na nen tojaat na beneen nen cey làmb Kumba Baldé nga koy ñaanal mooy yaayam ndeysaan ndeysaan oo oh, ñaanal na ko tifli na raayoo na yor na ak paftan da koy bàcc ci suuf yor na ak paftan da koy bàcc ci suuf bàcc na paftan nga bàccaat na paftan nga hee Pakola waay waay Pakola waay dugg na ci oto ba day dem Iba Maar la jëm ma ngay dugg ca oto ba yee Pakola